ñoo gën a lam de julbeeri ñooro rey nag ki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami Abdou Boucar mbokk yi seetaan seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV dellusiwaat nañu di leen nuyu di leen ziyaara am mbégte lool teewaat fii fas yéene dellu si ak yéen ci ñaareelu pàcc walla deuxième épisode jëm ci sëriñ kokki Njaga Issa Diop nuyu nuyu bokk yi nekk ci biir réew mi tey ànd ak nun ak bokk yi nga xamante ni ñu bitim réew waaye dinu bàyyi xel ku ci mel ni sëriñ Muntaxa Bachir moom Cheikh Mahmadul Murtada sëriñ Aliou Badara Mbengue ak bokk yi mu àndal ngir jàppale seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaare mbokk moom léegi rek la jokkoo ak man muy sëriñ Xaadim Fall wala Ahmadou Bamba Fall nekk ca Oslo ca Norvège moom it di rafetlu li nga xamanteni bi mom lañuy def fi ci Xam Sam Réew TV di nuyu ak ziyaara Serigne Abdoul Aziz Touré khalifa Serigne Adi Touré ci fas ak wa fas Touré gépp di nuyu Serigne Sidi Ndiaye khassidi ci Paris Serigne Khadim Saliou nek ci Paris waaye di ziare jëwriñ sëriñ Abbas Dieye nekk ca Anvers ak daayira sëriñ Touba ba fa nekk yëpp di nuyu sëriñ Khadim Mbegere jëwriñu fédération Benelux nekk ca Hollande ak bokki taalibe ya fa nekk yëpp bokk yi newoon nañu ak yéen ci pàcc bu njëkk ba ci sëriñ kokki Njaga Isa waxon nañ leen ni moom Senegal, Sénégal lu tax fi mu bok ci mamam ju tedd joju nga xamanteni ni moo doon borom daara ju rëy ja di sëriñ Maxtaar Ndumbe mi sañton kokki waxon nañ leen ni serigne kokki njaga isa ci ak ndaw la dal di tabbi ci tooli xare àndoon ko ak ay waa waajuram waaye yàqul woon dara ci diineem ndax li ñu doon wooye la révolution torodo ci atum junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn Almami Abdul khadir Kan dafa taxawalon ngonu diine ca foute bu don tane tay dañ nan ab republique islamique la fa def la fa defone lolé nak tasaaroo taxaway julit yoyu ba yegg won ci serigne si nga xamanteni bi ñoo nekkoon njàmbur ak kajoor ba taxoon na sëriñ kokki ahmadu faxuja miy bàyyu sëriñ kokki njaga isa àndoon na ak sëriñ si xeex ak dameel amari ngoone ndeel kumba waxoon naa leen ko ca épisode ba li jàll muy xeexu paalo xeexu caxriw ba nañu xeexe ba yegg ndakaaru ba sëriñ ndakaaru jàppale sëriñ si ba tax amiri ngoone ndee kumba dellu siwaat kajoor moom jëm ji nag di sëriñ kokki njaga isa fanweeri at ak ñaar gannaaw ba nga xamante ni bii dëkku maamam boobu ak daara ja gentoon na moom mi moo ko yee salaat nee naa leen ba muy sañ ci dëkk ba keroog def nañ fa téeméeri buntu kër ak fukk ak ñeent tolloog saari alxuraan yi kon li ma waxoon ni mooy Sénégal bi mu sañcaatee kokki am na taxawaay boo xamante ni taxaw na ko ba tund yi fi nekkoon tund yooyu yëpp nungul ko jamono jooju itam dameel bi fi nekkoon doon Birima Fatma Thioub Fall doon dameelu Kajoor li sëñ Kokki Njaga Isa doon ab sëriñ teewul wutoon na ndomb tànk ngir takkal ko sëriñ Kokki Njaga Isa ndomb ak tànk ga sëriñ làmb lañ ko doon wooye yëmul ca ndomb ak tànk googee waaye dafa jël ab jarbaatam di lingéer ndakani du balluloo dëkk ndaam jox ko sëriñ kokki njaga isa ab dendandoo ndax sëriñ kokki njaga isa mi ngi doon jëfandikoo ndomb ak tànk googu di sëriñ làmb li taxoon dameel def ko gisoon na ni sëriñ la barina mbooloo mu bëgg koo ñoddi ci mbirum politik bëgg la ko lëkkale ak boppam tax mu jox ko ndomb ak tànk googu waaye yemu ca mu jël ab jarbaatam jox ko ko sëriñ Kokki Njaga Isa yëmul ci gorom lente ak damel Birima Fatma Cubb waaye ëtt yu mag yi fi nekkoon yépp lëkkaloo na ak ñoom ci dëkkoo maanaam denc soxna gannaaw ba mu dëkkoo jarbaatu damel Birima mu Cubb gannaaw ba dëkkoona Linguère drobe Soxna Fall Saasum Jóob don domi, barget di aminata yàlla saaxewar Fatma Jóob di domi, barget saaxewar Fatma Jóob jëkkoo itam soxna Absa ba Touré wala soxna Absa Mbacké wala soxna Absa Ahmadu, soxna Busu, kookoy wajuru soxna fat isi Diop muy wajuru borom darul morti doon surtout maam kon nga gis ni denda doom yooyu yëpp lañ daan wax bu njëkk yax bu rëy walla lam bu rëy ca la bokk loolu yi nag la daloon dammeel yi te yàgg leen dal muy fiiraange dammeel Birima Fatma Thioub gis na ni kët sëriñ kokki njaga isa mii kat nit ñaa ngi fàq jëm ci moom bari na doole lool tax mu tàmbalee moytu sëriñ kokki njaga isa dal di jël sëriñ boo xamante ni bii ab naar la cosaanam di Tumbuktu muy Cheikh Bounama Kunta daal di koy def xaadi Kajoor daal di jël dànq dëkk bi ñuy wax dànq nga xam ni soreewul ak gëb la googu di ngi gis fi dameel Birima Fatma ci bu nekk kon Cheikh Bounama Kunta la jël def ko muy xaadi Kajoor sañcal ko wala mu jox ko suuf soosu nga xamante ni tey mooy ndànk soriwul ngay mexe waaye soriwul itam ngi gis fal googu nga xamante ni fal na ko Cheikh Bounama Kunta tax na ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar muy mille huit cent sering kokki njaga isa gisul bopam ci pal gogu ñu fal cheikh bunaama kunta sëriñ lamb bañ ko falon ak yoy yep mu dal di koy tek fele gis ni damel brima fatma ci bu tek nako beut am na lu mu nar mu daldi jóg nag daldi wut ab xarem daldi di fippu bi mu defee loolu nag Damel Birima mu Cubb moom itam daal dajale xare bu mag a mag a mag a mag ngir dal ci kaw sëriñ kokki yi njaga isa ndax moo fi njëkk dëkk kajoor mu dem ba jox ko ab jarbaatam waaye gis na ni bëgg wàññi doole yi sëriñ kokki njaga isa tax na mu wut beneen sëriñ def ko muy xaal yi kajoor brima maanaam dameel Fatma ci bu day di dajale ab xarem dajale ceddo yu bari ngir song sëriñ kokki njaga isa ba mu ko songee ñu xeex xeex bu méttee méttee métti nga tax li ma leen waxoon ni leen ceddo yi ak sëriñ si li leen wutale ceddo yi amoon nañuy pexe am ay ngànnaay waaye sëriñ si itam seen alxuraan jooju ak seenu jàmm yàlla teewul ay bañkat lañu woon yooyu nanguwuñu woon ku leen not gannaaw xeex ba ci la sëriñ kokki njaga isa dem ci dëkk bu ñuy wax ndimb nekk ci diggu waalo ak njàmbur diirub ñaari at muy atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ba ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent muy entre 1827 ak 1829 ñaari at yooyu sëriñ kokki njaga isa fexe na ba dajalewaat mbooloo mu bari ñi ci ëpp doon ay sëriñ ay jullit yu nekkoon waalo ànd ak koo xamante ni jàmbaar la woon taalibe sëriñ kokki njaga isa la woon muy gille fatim caam walla gille Fatim Thiam Kumba Jombos doonoon jàmbaar lool mu daldi lëkkaloo ak moom ngir dal ci kaw nguuru waalo ndax jamono jooju fekk na waalo itam xeexante ci seen biir li ñuy wooyee guerre civile tasaaroo woon na lool ci diggante barak ñi nga xamante ni bii ñoo nekkoon waalo ndax ci atum junni ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar barak bi ñu doon wax yërim mbañik tegre la mbóoj ci la faatu wala ci lañu ko faat lingeer jëmbat mbóoj dal di fay sës jamono joju mi ngi don wër kuy wara don barak mom jëmbët moy, magi, ndate yalla ñoo bokk lepp ndate yalla mi nga xamanteni moy wajuru waajuru ndate yalla njëmbët moomu penda Adama Sall Mbodj mom la tan ngir mu don barak jamono joju koku mu tan nak di penda Adama Sall Mbodj ab la wax la won bu wara falu waalo waaye jafewon nako lol ko nañu ni dal lii tax muy war a mën a nekk barak dajewul woon ci moom kon jamono jooju waalo xëccoo ba pëccëxoo ba xeexante ci seen biir bari woon na fa lool lool lool lool lool ci loolu yi nag ci la Dile Fatim Thiam Kumba Jombos ànd ak Serigne Kokki Njaga isa ak lu toll ci ñetti junniy soldaar maanaam dajale woon na ci mbooloo loo xamante ni bii maanaam xare bi mu àndal matoon nañu ñetti junni ñu daldi dal ci kaw waalo xeex fa xeex yu mette metti xeex yooyu yàlla dogal Jille Fatim Thiam moom ca la faatu doonoon jàmbaar joo xamante ni ku jàppale woon Serigne Kokki Njaga Isa la waaye Serigne Kokki Njaga Isa moom sunu boroom musal na ko ci xeex yu metti yooyu nga xamante ni xeex na ko ak waa waalo gannaaw ba mu xeexee ak dameel fat mu Thioub ba tax mu jóge njàmbur ñëw waalo ànd ak gille taalibeem boobu nga xamante ni bii fu mu mas a geesu gis ko mu doonoon itam jàmbaar muy gille Fatim Caam Kumba Jombas faatoom googee taxul sëriñ Kokki Njaga Isa dellu siwaat njàmbur déedéet dafa wéyal xeex boobu nga xamante ni bii door na ko foofee ca waalo mbokk yi kon dañuy yemale pàcc bi fii di deuxième épisode bi incha allah danañu dellu siwaat ci sëriñ Kokki Njaga Isa fa mu mujj ca waalo ba ci atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer muy mille huit cent trente la fa xew ba mu dem ndakaaru épisode bi topp ci bii di troisième épisode bi incha allah danañu ko ci indi kon ñu di leen sant di leen gërëm di leen ñax rek ngeen abonné ci seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ngir vidéo bu ñu dugal rek ngeen man koo am gannaaw sant gi ak ngërëm li dama leen di tàggu di leen dox daje ci ñetteelu xaaj wala ñetteelu pàcc wala troisième épisode jëm ci jëm jii di Sëriñ Kokki Njaga Isa mu doonoon seen mbokkum taalibe liggéey akonu borom Daaru Muxti Mbay Géey Sil ma di leen sant di leen gërëm jërë ngeen waaye français lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal ci Sénégal ñi génn gàddaay far dem faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fan nañu saamu soose yóbbu gabang boole koog baraama siise taala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko biir nag laaw la ma faraañse ñoo génne lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar